sax kilifa diine itam xelam xam-xam mbaa may na ko xam-xamu àdduna mu jàng doon ingénieur en finance léegi comme jàpp waa kay caisse d'avance euh, loolu ci procédure dépense publique la bokk li ñu dépenses publiques. publique xam nga état xaalis bi muy jaay euh, dépense publique la euh, mu ñu may ma ci tuuti ma ma ma développé ci tuuti xam nga état day fonctionner sur la base d'un budget recette dépense moy li lay am ci ni la ko comme ñun ñep yow sa salaire xam nga né 100000 ngay fayeeku par wèr bala wèr bi dé def nga sa programme dépense bi location li, nangam nangam état non lay def koy répartir ci service yi service ay service am ku am sa budget qui fonctionne. ñu ne nag dépense su état dafa am procédure boo xam ne moom la war a topp balaa ñoo dépenser maanaam yow chef de service nga directeur nga fenn walla maire nga pour ñu jël kaawu maire yi sax bi nga xam ne moom moo lañ doon wax maire ordonnateur la dafa am ay service am dafa am conseil municipal conseil municipal lu maire yi mi ngi mel ne ni assemblée nationale mais ci gouvernement bi mooy peuple mooy élu yi mi ngi mel ne ni conseil d'administration di mel ci agence wala cib société maire bi nag moom mooy genre directeur bi bu ñu ko falee dafa am ay service bu dajalee budget ne man kat patente lii laa ci encaissé ren euh, all et marché lii laa ci encaissé occupation voie publique lii laa ci encaissé taxe sur l'électricité lii laa ci encaissé dajalee lépp ba mu nekk nangam ci xaalis mu ne lii nag nii laa koy jaayee salaire yi nangam la Euh, mobilier de bureau mooy war naa jënd ay bureau tey pour sama directeur yi war nañ am salon am kii mobilier de bureau nangam la ay oto nangam la léegi su su ma bunt yi service yi léeg-léeg bunt bu yàqu léeg-léeg bu yàqu nangam la bu defee loolu lépp ba pare daf koy répartir da ko jox conseil municipal bi mu voté ko conseil municipal bi bu ko pareil, ba pare da koy préfet mu approuvé ko comme budget état ni ko ministre des finances di defee rek gouvernement bi dañ koy jox assemblée mu vote. ko ñu jox ko président mu promulgué ko devons approbation bi ñu le exécuter budget bi moom tamit bu ko conseil municipal am voté daf koy jox préfet mi nga xam ne représenter représenté état préfet approuver ko nous d'accord accord parce que li tax conseillers yi mën nañoo bañ a doon ñu am xam-xam mën nañoo bañ a doon ñu jàngul ay politiciens lañ ñu ñu fal. mën nañoo bañ a doon ñu jàng leneen mais xamuñu finance xamuñu budget mën nañoo bañ a doon it ñu xamul lan mooy loi yi ak réglement yi moo nañoo bu ñu defee li ñuy def ba pare dañ koy jox préfet bi mu xool ndax lii ñu def nii respecté na constitution bi respecté na loi bi amul benn faay mu approuvé ko bu ko approuvé ci la maire di doog a am droit di ko exécuter trésor moom mooy dem di encaisser boobu xaalis di dépenser tamit